batay ci sen scandale du jour de ce mardi 27 février 2024 dama bëgg ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. dafa melni mu ngi ci ligne bi ñu jëlat euh, keneen ki ba ba xam momit lan la ñuy indil. alaykum salam waaw man ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant aussi di rafetlu sen jotaay bi. merci beaucoup. Non, ngi tudd Omzo le berger nekk ci réseau international des amis et sympathisants du président Amadou Ba. waaw doon bëggoon participer rek aussi parce que baax na trop des fois Sénégal ñuy rétablir euh, les faits. rétablir les faits nag mooy tey yéen journaliste nekk n'est que le quatrième pouvoir ci état. Mhm. des fois da ngay gis lu ci communication tey lu yóbbee Sénégal si. Mhm. situation bu mu nekk une partie des médias ñoo ñu si en complice. Mhm. parce que au lieu tey di wax Sénégal yi lan mooy dëgg. Mhm. da ngay gis tey Sénégal comme waa ji lu mu doon wax rek ñëpp sa équipe Sénégal bu joué ñëpp ay entraîneur lañu. te Sénégal Sénégal te ñëpp ay constitutionnaliste lañu. ñëpp ay juriste lañu. ñëpp ñooy wax lan la conseil constitutionnel war a def. lan la état bi war a def. ñëpp ku nekk mu ngi ardu si loo xam ne amoo ci xam-xam ñuy ay. te loo xam ne manifestement ñu dem indi opposition. Mhm. wala une société civile boo xam ne euh, encagulé ñoo fi nekk. Mhm. wala les gens doon des intérêts yoo xam ne signé nañ ko déjà ak ay bailleurs yu nekk à l'étranger te mënuñu bañ a dem ci report élection yi. Mhm. ñooñu tey bu ñu weesoo état boobu rek ça les arrange plus. mais te lan la ñu lan la ñu seetlu dañu seetlu tey la date du vingt cinq mu nekkoon démb février élection amul. le présent mu toog mu ne man sama pouvoir le 2 avril lay jeex donc maa ngi woo ñëpp ñuy ñëw ñu toog dialogué les candidats yoo xam ne tey dem nañu bu conseil constitutionnel ne ñii ñoo war a dem si jàng si jongante bi ñu ne seen si ñoom ñu ne ñoom ñu dem wuy ji dialogue bi mais ñoom ñoo bëgg Macky Sall kon mu toog ñoom ñoo bëgg Macky Sall mu nekk fii ba ci kanam. sinon kaay leen ñu date ngeen wax ban date ngeen bëgg ñu dem ci te diggante date boobu bu dé dépassé nañ la date du 2 avril Sénégal mu rester sans président le poste du président de la République ne peut pas être vacant. parce que bu leen ko ni que on n'est pas dans un cas de démission où le président de l'Assemblée nationale peut remplacer le président et organiser des élections en 90 jours. Mm-hmm. donc nous moo tax tey dialogue bi mu crucial mu important pour que Sénégalais yi ñu mën a tànn date boo xam ne si lañu ñu war a dem élection mais aussi lan mooy nekk après le deux mandat wu président bi ou bien ban ban scénario moo war a proposé au Sénégal parce que le Sénégal même constitution bi prévoir woon cas bi. Mhm. voilà sama question bi lay posé dégg naa nga wax ne ñi nga xam ne ñoom la ñu woo ci dialogue bi bu ñu demul ñoom ñoo bëgg Macky Sall toog waaye est-ce que euh, ñoom amuñu raison ndax dialogue amoon na fi ñu toogoon waxtaanee. li nga xam ne mooy élection yi waroon am février vingt cinq euh, yàlla dogal démb la woon le vingt cinq février atum deux mille vingt quatre xam nga ni man xam naa ni ñi seetaan xam nañ ni élection amul démb ndax ñoom it jàpp ñu ne nax yooyu ñu leen naxoon première toogaay bi moom lañ leen bëgg a naxaat ba ñoom ñu boycotté li nga xam ne mooy bi waroon am tey ak suba. bon soo tamit bu ñuy waxtaan wax dëgg ci la. Mm-hmm. te gis nañu fi ay candidat ñoom ñu turee les parrainages bi baaxul et am dañu am ay problème clé ay dix ay quarante candidats yoo xam ne ils se disent ñu dem président recevoir leen ñuy demander report élection bi ñoom Boubacar Camara ñoom Bougane yi Dany ñoom ñëpp ils ont jugé que ni fichier bi mm-hmm. procédure bi baaxul dañ ko war a reporter mm-hmm. aussi ñoom Aly Ngouille Ndiaye toog nañu nee ñoom en tant que muy ancien de l' gis nañu ni que processus bi baaxul dañ ko war a reporter. Mm-hmm. te Macky Sall mu dëggal mu reporter que ñoom ñëpp ñu del delluwaat ci ginnaaw. Mm-hmm. ñu ne non il ñu dem élection dañoo waroon dem élection pourtant ñoom opposition bi guddi bu nekk ñoo ngi dem pare ñoo ngi dem di négocier seen intérêt wu bopp. Mm-hmm. ñu demee ba ñu gis situation bi te toll na ci kaw boo xam ne Sénégal mu ngi ci un virage déterminant. damay bàyyi ma def digression tuuti rek parce que xoolal ma Mali. Guinée. Burkina tous ces pays qui entourent le Sénégal am na ci ñoo xam ne ça fait trois ans élection amul foofu ay coup d'état moo fa nekk Sénégal mu nekk zone boo xam ne tey dañuy découvrir pétrole ak gaz te Qatar moo xam ne tey mu produire gaz mais bëggul Sénégal nekk si stabilité est occidentaux bëgguñu Sénégal nekk si stabilité pour que gaz boobu Sénégal mu exploité si jàmm mun am contrôle boobu la mainmise donc il faut par le biais de lobby par le biais d'une société civile en Cameroun mais par le biais aussi de parti politique yoo xam ne intérêt Sénégal yi ñoru leen seen intérêt boobu moo fa nekk ñu monte lu xew Libye lu xew yenn pays yoo xam ne découvrir nañ ko gaz ak pétrole occidentaux yi France Amérique euh, ñoom ñoo fa jaar yëngal dëkk bi pour ñu mun donc on parle de la personne du président Macky Sall, Macky même à partir du 2, n'est que président. mais est-ce que le Sénégal dinañ toog sans président de la République kaa la ñuy ko ñu trouver une solution pour tout une date mais aussi d'ici le deux d'ici le que ces élections ca can mu xool kan mooy kon daal jàpp nga ni nga ni seize candidats yi def déclaration ñoom ni demuñu dialogue ak ku mel ne Bougane Gueye Dany ndax nee nañ ay fo la te ñoom duñu dem ci fo jàpp nga ni dañu waroon dem toog ci dialogue bi waxtaan ak njiitu mi. contraire fi nga tey man Bougane Gueye Dany nekk na koo xam ne nawluwuma ko parce que Bougane Gueye Dany il est il a des impôts de l'État yoo xam ne war na ko fay fayu ko ay nit yoo xam ne ñu ngi chantage nguur gi mu ngi ñoom Bouba Ndour yor état non xoolal bu bugaan ngay dañ te boo gisee muy muy jël veste bu mu sol parce que dafa am ay différent ak état bi ay nit di toog mel ni ay boobu nduur ñoo xam ne te xam na ñoom ñit seen part appartenance ñu ngi fekkante yenn euh, euh, yu mag

biir tous ces candidats yoo xam ne qui se disent pas duñ dem dialogue mais ndekete ñoom ci suuf am na des intérêts personnels yu tax te ñu dem dialogue. Mm-hmm. tey tey maam. kon yaakaar naa ñoo déggandoo vidéo bi ñu dem seetaan beneen vidéo bi. ñu ngi yenn euh, euh, bailleurs yu mag.

si biir tous ces candidats yo xamné ne qui se disent pas duñ dem dialogue mais ndekete ñom ci souf amné des intérêts personnels yu tax te ñu dem dialogue mm-hmm. tey tey Mame Boye Diao il est comptable du bilan euh, de Macky Sall ñom ñi tey ñu ci bëri si ñoom Khalifa Sall dialogue mo taxé bu nekkaat ci liste candidat yi mm-hmm. Khalifa Sall mii tey di wax naan du dem dialogue mais dialogue moo tax mu nekk si candidat yi. Boubacar Camara tey moom moo demoon toog ak Macky Sall pour que ñu reporter élection yi. d'accord Kuba. il ne faut pas ñu leurre yi. Euh, te l'heure est grave situation géopolitique bu Sénégal tey permettre Sénégal muy nekk si si guuta wàll si si jaxasoo boo xam ne keneen kenn du mun am contrôle bi. Kuba yi. président Macky Sall leen. si vous n'êtes pas prêt à prendre le pouvoir il y a des forces organisées qui vont le faire. mu ni heure bi daf ñu heure bi daf ñu xoj xamna dañ lay bayyi nga fàttali tour bi rek benen yoon ñu and ak yow ci lu ko gëna yaatu ndax émission bi mom dañ ko bëgg euh, diko and ak wa biir réew mi rawatina ñi nekk bitim réew Fat ñu tour bi. man maa ngi tudd Omzo nekk responsable communication bu réseau international bu des amis et sympathisants bu président Amadou Ba mais wax leen rek fu may daanalee. Ah. les profils qui sont là ñoom ñëpp profil yi boo leen dajale kenn ku ci nekk ci ñoom mm-hmm. da xam ne que Amadou Ba le meilleur profil pour sauver Sénégal situation bu ñu nekk mm-hmm. bu ñu jaawale ennemi bañ nit bote bu bu nangu ni Sénégal kan la soxla kan moo am compétence pour yore dëkk bi mm-hmm. Amadou Ba dong la il faut pas qu'on se leurre Omzo jërëjëf SeneInfo TV tijjil na la ay buntam ak émission bi di bët set saa boo bëggee participer rek daañu la boole ci waxtaan jaajëf. kon yaakaar naa ñoo déggandoo ñaari vidéo yëpp moom nag nee na Amadou Ba le meilleur profil beneen bi ci topp mooy média yi mooy les journalistes na ngeen di wax lu arrangé peuple bi na ngeen di wax li nga xamante ne peuple bi moom la ñu soxla dut na baaraam ñenn ci journalistes yi nag euh, kii di Bouba Ndour nag. bokk na ci li tax tey fan yi média bi bëri na ay coow surtout palaatu jàkkaarloo parce que ñoom dañoo jàpp ni buuba dafa am fu mu féete buuba a toujours dit nekkalu fi Masamba nekkalu fi ma demba mais tout le temps ci communication dafa am luñ ciy ràññee mu nekk loo xamante ne ñëpp a koy ñaawlu ñëpp a koy Euh, parce que gis nañ sax mama ki def ci benn sortie boo xamante ne dafa attaqué directement ki nga xamante ne mooy magam di Youssou nduur ndax nee na nag donte président Macky fekk na Youssou nduur am lu muy am waaye wàññiwul ci lu mu am da koo yokkal ci lu mu am donc mu nekkoon waroon nekk les premières personnes yi nga xamante ne dañuy taxaw président Macky waaye dañu gis. parce que nag sénégalais dañuy bàyyi xel te dañoo gis ni dafa am lo xamantene ne commencé na changer fële sa futur média commencé na changer au point que ñu bari def nañ différence bi xam nañ ñu ngi bëgg a njortu ñoom fan la ñu mën a féete média du démé noonu média du démé noonu encore une fois les journalistes que ce soit chroniqueur parce que nak Diégui Diop aussi wax nako ko man j'assume que je suis avec le président Macky Sall j'assume que je suis une militante de président Macky Sall mais je suis passé soi-disant chroniqueur yi nga xamantene dañuy mbubboo ay chroniqueur lañ fekk dafa am fuñu far mu nekk lo xamantene analyse bu pertinente la analyse bu ñu war a mën a bàyyi xel parce que dañ fee gis ay juriste di takk ay bracelet gis nañ fi ay journaliste di takk ay bracelet gis nañ fi ay journaliste yoo xamante ne da dem ba si ñoom enregistrer sa émission témoin oculaire euh, Abdou Nguer enregistrer émission ba pare ñu ne ko duñ fi teg ndax li nga wax arrangé wu leen ndax nag dafa jël ay kàddu dal ci kaw Ousmane ko wax dëgg bi ñu ne duñu teg émission bi c'est quel genre de de de de d'organe de média ban genre organe média lañ mën a gis foofu yow nga invité nit mu wax li muy wax ba daaneel nga ne ko demal ñibbi émission bi duma ko teg manque de respect total nga toog ci plateau mu leer na ni li ngay wax du dëgg nga insister ngay insister di insister ba set ba mu dugg ci xelu sénégalais parce que dafa am ñoo xamante sama genre gi la jànguñu du ñu gestu maanaam demuñu école te du ñu gestu te loo wax rek ñu ne ay gonga dafa am ñooñu nous ñooñu bu fekkee ni ñoo gën bëri parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école d'autres ont eu la chance d'aller à l'école mais yàgguñu fa d'autres ont eu la chance d'aller à l'école mais dem nañ école ci rien parce que ils n'ont rien compris bëri na fi sama genre la mais on comprend rien du tout noonu laa ko mën a alors ces journalistes suñu ay journaliste dimbali leen ñu di ñu jox cette information qui est vraie et dimbali leen ñu te benn boo leen faree boo leen def seeni émission ngalla bu leen ko fësal mais nga yow nga ne chroniqueur nga boo jógee ci plateau yi génn ne yaa ngi jéggalu Ousmane Sonko ndekete Ousmane Sonko moo nekkoon ca dëgg ban dëgg Ousmane Sonko ci ban dëgg la nekkoon et on a vu que euh, monsieur Charles def na ko te dañoo mësa a ci plateau bi ñoom dañoo féete léegi bu génnee ne ah, mom kat nekete mu ngi won fe waye deug bi fi la nek loolu la lay duru donc yakarna waji waa la doon dénoncer à ce que les journalistes soient neutres nañu neutre te bañ a di juger di joxe l'information juste et vrai loolu lañ soxla buñu xamul ñom ño wara a wuti l'information indil ñuko ko ndax ñun xamuñu te mënuñu ko wuti ñom may nañ leen accès fep parce que même président wax na dañuy nan jugé wuñu am na ñoo xam ne ba dafa ni dem leen ci tribunaux yi ngeen gëstu xool chaque jour lan moo fay xew mais da ngay gis ku lay ne journaliste la xamul buntu tribunal ba amul benn tribunal boo xamante ne xam na ko xamul lu xew ci dëkk bi te bu toogee naan lu waa lay wax bu toogee naan non c'est du c'est du jamais vu quoi donc na ngeen ñu jéggal te baal ñu te xam ne ñun euh, jàngu ñu gëstuwuñu ci yéen la ñuy yaakaar am cette information juste et ngeen koy wëri te bañ a féete. te bañ ne kii moo baax kee moo bon c'est pas à vous de le dire bu Macky Sall nekkee ci dëkk am leen fulla ak fayda xamal sénégalais aha Macky moo ne ci dëgg lii ak lii fii lañ ko teg bu Sonko nekkee ci dëgg ngeen am fulla ak fayda wax ko ba sénégalais gis nga Ndeye Fatou bu seen TV dañuy saluer courage am ñu bëri dañu ne dañu yaakaaroon pouvoir la nekk mais gis nga bi président reporté élection yi ba ba pare après bu ñu gisee muy wax yenn wax yi dañoo riir xamatuñu fu mu far c'est parce que musul far c'est parce qu'elle a toujours été là pour ce Sénégal pour ces gens qui n'ont pas compris mais nous ku wax tay Sonko ku bax la eh, ki mo mo yor information bu bax bi Bo waxee makki ku bax la dañ ko jënd dañ ko jënd alors que man nga wax tey Sonko waxal ko lu bax, bu suba nga waxal makki lu bax ça dépend ku nek ak lu muy def parce que askan wé la ñor mais Sonko bu défé lu baax Sonko rek kay def lu bax, makki mës ta def lu bax. loolu du journaliste encore une fois dimbali leen ñu di leen di ñu jox cette information ci est juste et vrai parce que sama genre gi dañoo bëri ci dëkk bi xamuñu ñoo xam gestuwuñu jànguñu dañ fee bëri maanaam ñoom lu ñu leen jox ci télé rek te dafa am organe de presse yoo xamante ne am nañ doole boo xamante ne ñun jàpp nañu lépp lu ñu fa mës a wax suba ba ngoon hey looloy gonga looloy dëkk ñun loolu lañ jàpp dafa am organe de presse yoo xamante ne seen tur ak fi ñu toll ak set nombre de personnes li leen di suivre jàpp nañ ne lu fa waaye wax rek loolu mooy dëgg ne dara lu fa du fa jàll lu dul alors que c'est pas vrai c'est ces c'est ces organes qui ont plus de de de de de de pouvoir doole ah ñoom ñoo dàkk manipuler moo tax sénégalais yu bëri réer parce que les télé les plus suivis manipulation bi fa la gën a bëri ah ouais les sites internet yi nga xamante ne les les plus dangereux maanaam ñooy wane loo xamante ne ça n'existe même pas au Sénégal ce sont ces sites là qui sont plus suivis malheureusement parce que jàpp nañ ne dëgg bi fa la nekk site bi am na doole kon dëgg rek lañ fay wax alors que dara du ci dëgg donc vérifier l'information ngeen neutre jox ñu ñun ñi nga xamante ne xamuñu jéemuñu ko ngeen dimbali ñu jox ñu information juste da da gis kuy werante werante boo xamante ne mu xam ndeysaan du ci xam dara di werante rek ci loo xam ne xamu ci dara ndax la tele diw laa ko dégg diw laa dégg mu fekk kooku lu muy wax daara du ci dëgg.